Eh, ñu ngi lay ziar sëñ bi da ñuy baal fàttali ñu tur bi rek. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd Serigne Fallou Mbacke Galas Mahanta di doomu Serigne Cheikh Dioral Mbacke. Mbacke Bari Jolof buñ koy wax tey ban taarix lañ ci mën a jàpp dëgg. taarixu Mbacke Bari Jolof de moom buñ ko doon wax mooy taarixu yoonu murid rek ndax euh, Serigne Touba liggéey bu mag bi nga xam ne liggéey na ko ci yoonu murid liggéeyal ko lislaam bépp muy dem jëm dem ci géej gi loolu mi ngi tàmbale woon ca Mbacke Bari moo wax ne sababu xaybati an allaha arada an anaala minhu jaha wa an akuna saafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi lu jiitu Serigne Touba di fa sanc sax maam maaram moo fa njëkkoon a sanc ci année 1700 jógee fa bàyyi fa Ahmadou Soxna Bousso ak Sahid Soxna Bousso ñoom seeni bàmmeel ñoo nga ca Mbacke Bari ginnaaw boo xam ne Sëñ Tuubaa nag am na ndigalool boromam ngir yanu liggéey bi moom dafa tànnaat Mbacke Bari ñëw waaje fa eh, liggéey bi mel ni euh, liggéey boobu am na solo waaye li tax mu gën a fës dëgg moo di premier août 1895 bi Sëñ Tuubaa jógee wut si géej waaw liggéey bi li tax mu gën a fës mooy le 10 août 1895 la fay jóge dëppoo 18 safar 1313 foofee la jóge dem ndar jàll dem ci liggéey bi nga xam ne moom la doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu mën a wax ne daal fekkoon maanaam yoonu géej gi day dañ koy misaal ci julli day mel ne euh, Mbacke Bari moom mooy faatee ci ci ci julli bi kon Mbacké Bari daal mooy mooy moo mooy départ exil si Ahmadou Bamba dem ci géej gi. waaw kilifa yi moom liñ ciy def rek mooy bég ci lool lool lool ndax Serigne Touba ak Jolof dafa am lien am solo yoo xam ne da koo tënk ndax Serigne Touba lu jiitu muy woote yoon wi wax nañ ne bi muy jàng alquranul karim nekkoon na Jolof te loolu sax mën nañoo jàpp ne Mbacké Bari la ndax maama moo ko doon jàngal muy tafsir Mbacké Ndoumbé wax nañ ne jamonoy jamonoy nawet Jolof laa daan nekk mu noore mu ñëw Mbacké Bawol moo tax lii nga xam ne daayira Miftaahul Muna bi nga xam ne boo lëkkalee jolof-jolof yi jàngee ci université li ñu def lu rëy la ci ñun ndax ñun ñi ñoo ko waroon def waaye nag ñoom dañoo yëg ne lii liggéeyub Sëriñ Tuubaa la moom liñ ci def rek Sëriñ Tuubaa lañ ko defal kon ñu ngi ci bég bu baax a baax ci ndigalul kilifa yi lañ ci ñëwee ànd ak ñoom liñ ci def rek dañ ko am ndigalul Cheikh Mamadou Mountakha am ci ndigalul Serigne Abo am ci ndigalul Serigne Cheikh Jorel mi nga xam ne ndoonoon Mbacke Bari li ci loxoom la tege ak njabootu Serigne Cheikh